alaykoum mbokk téléspectateurs yi seetaan Allo Dakar TV man Dalu Ndakaaru tay euh, maa ngi nii di leen présenter sen émission sunu gan ñu and ci ak euh, direct actu ah gis ngeen ko mi ngi nii direct actu ñu def euh, élection locale 2019 beaucoup de maires vont tomber ah, manam maire yu bare dinañ daanu waxuma ko direct actu ko wax dinañ ci ñew ci revue de presse waye tay tey maa ngi am gan.

Euh, rafet Loumoko Nak, ko que ndaxte ay étudiants yu majeur di jang nek cycle euh, universitaire di dem bay di di di casse affaire je pense que la responsabilité incombe d'abord à l'État parce que l'État mi nga accompagner les étudiants accompagner les ci sen jang accompagner les ci seen euh, jumtukaay yep li nga xamné surtout en besoin physiologique parce que affaire toilettes c'est des c'est des besoins physiologiques c'est des besoins naturels doomu aadama da ko soxla donc yooyu noonu bu amee faay rek donc mun na am ay répercussions yoo xam ne nii ku ci nekk rek mun nga ci muy étudiant bi muy état bi mun nga ci tirer ay responsabilités. La faute à qui? Bon, je pense que la faute est partagée. Hein. D'une part, état l'État a ci responsabilité, mais d'autre part, euh, les étudiants qui sont logés UGB parce que parce que aussi état je pense qu'il faut que, il faut que bon je m'excuse pour le terme il faut que charmer état pour nous faire c'est la xam bengali bengali ou nous bëgg là. lii mu ñëw jàppale la xam nga nga ci français quoi mais de source spontanée je vais citation buy wax je n'ai jamais déjeuné avec l'état mais certes je l'ai vu payer l'addition état peut-être mu fait def li mais moi je pense qu'il y a des y a des choses yoo xam euh, tu ne dois pas attendre l'état parce que man man boog li ma gëm moy étudiant même sen douche bu débouché bu bouché maa ngi ci wax bi même sen ki bu bouché ñom war nañ collecter def sax ben geste ñom comme que ñom ñoy nek foofu ñoo koy ñooy utiliser affaire parce que l'état c'est c'est qui d'abord, c'est une c'est une personne abstraite donc étudiant ñom ñom ñoy incarner état donc ñom ñoy wara a def jumtukaay yépp pour sax né

mais je vois que c'est inadmissible que ay étudiants di jël ay affaire de déverser Je ngi xewee UGB bureau bureau recteur euh, université Gaston Berger d'accord Vraiment, euh, élection présidentielle yi génn nañ ci ñu ngi waajal sax local ah defi la jaar na fi mi ak mouvement présidentiel du Sénégal en tant qu'étudiant bon élection yi une nañ ci je pense que moi, que le peuple a manifesté sa volonté peut-être de réélire euh, le président, son excellence Macky Sall. Donc, man, limay, limay, limay, warti lol rek force vive que ce soit l'opposition, que ce soit euh, parti au pouvoir, nous ñu citoyens ah. parce que peut-être néna 5 ans, 15 ans nous ko élire. Donc, ne serait-ce que nous avons ko chance pour que les les les les le quinquennat bi accomplir après le Sénégal sera en marche mais tamit que le peuple soit euh, pour euh, réélection pour que tamit pour que nourrir euh, son son son parti

université Anta Diop wax UGB wax université bu bu Ziguinchor wax université bu Bambey xam nga man je veux que rek moom mu xam ne que euh, Ablaye Wade dafa doon wax ben wax bu mu wax suñu mam bobu ñu fonk ko mu ne montre-moi ta jeunesse et je te dirai quel pays tu seras donc jeunesse bobu da nga ko war a teg foo xam yow tegoo fa sax sa bop parce que les hommes passent mais les institutions demeurent te institutions yooyu bu ñuy demeurer jeunesse bi tay ñuy xeyat suba gérer institutions yoy noonu donc jeunesse il faut une jeunesse saine une jeunesse une jeunesse constructive mais pas une jeunesse qui de faire dafay ou créer des tensions wala créer des problèmes quoi.